maa ngi leen di fay di kontaan lool ci seen teewaay tey ci quatrième édition festival de cinéma Les Teranga. comme ni mu ko waxee rek euh, bu ren bi dafa àllaa daw mi parce que dañ fi fekk euh, bari nationalité yu bari lan mooy expliquer cela. waaw ah, xanaa sant yàlla euh, rêve la ñu amoon mooy euh, at bu nekk ñuy woote comme ñun ñii waa Sénégal ni ñuy dem di wuy ji at bu nekk yeneen i dëkk di fa am ay raaya ñun ñu fay sagal ñun itam suñu mëbët la woon ñun waa association cinéma 221 mi def festival bi euh, ñu am xew bu mel nii boo xamante ne at bu nekk nit yee ñëw spontanément jóge seeni réew jóge déjà fii ci Sénégal ak seeni réew ñëw fekkee bés bi donc ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax itam di sant képp ki nga xamante ne euh, jot naa def lu lu néew wala lu rëy pour festival bi euh, mën a am tey. kon daal dafa mel ni si tànk internationalisé ci nga nekk. waaw ci loolu la ñu nekk ndax boo seetloo bu njëkk bi festi euh, Teranga Movies Awards la ñu tuddoon donc cérémonie de récompense rek la woon euh, at yi di dem ñu dem ba tuddee ko festival donc festival international ñu gis ci Mali gis nañ ci Côte d'Ivoire gis nañ ci Burkina gis nañ ci France tamit gis nañ ci Maroc donc vraiment suñu mëbët daal mooy at bu nekk ñu mën di di Sénégal ñun déjà li ñu am ci lu gën ci lu baax euh, wane ko accueillir gan yi waaye itam euh, lëkkaloo ba nga xam ne loolu dina mën a jur yeneen i projet ndax euh, loolu mooy indi développement. lan moo def particularité bi ren. ren moom defe naa ni déjà ci programme bi jéem nañu indi ay innovation muy wàllu panel yi muy wàllu master class yi waaye itam muy wàllu benn académie boo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi ñuy yëngu ci wàllu cinéma Euh, particularité bi nag mooy dañoo jël euh, suñu ay yaay yi fi nga xam ne fii lañ leen fekk ñu yàgg ci liggéey ci métier bi am xarañ ci lool euh, ba ci xale yi nga xamante ne ñoo ngi doog door bu ko defee ñu mën a def loo xamante ne mosu fee am daal waaw académie intergénérationnelle lañ ko tuddee bu loolu weesoo ginnaaw projection yi nga xam ne dañ ko doon def ci koñ yi ak gox-goxaat yi daaw ren dañu def ay projection ci saalu cinéma yoo xamante ne dafa yokk prestige u festival bi euh, boole kook bés bu nekk mu nekk projection am soirée suivie de cocktail euh, bi ñu jógee ci loolu ñu daal di am nag délégation boo xamante ne dafa jugee Mali jël oto ñu ñëw nekk une délégation de d'une vingtaine de personnes ànd ak seen i presse ak seen i réalisateur ànd ak seen directeur de la cinématographie ñëw sagal si ñu ni ko waa Maroc dafee daaw donc euh, vraiment di wax waa Sénégal ne Euh, suñu mébét daal mooy fësal suñu réew ci li mu gën a baaxee kon nag ñuy waajal at euh, at bu nekk festival di Teranga xam ne seen festivalu bopp la waaw. léegi gis nañ organisation bi gis nañ cérémonie bi nu mu demee gis nañ euh, série Salma bi moo raflé la mise lan nga ñu expliqué ci loolu est-ce que jury bi noonu la. <laughs> ah loolu moom defe naa ni jury bi lañ ko war a laaj parce que euh, li bi ñuy créer festival bi euh, lenn ci suñuy objectif mooy bés bu ñuy euh, nommer jury ba ñooñu war a joxe ay prix dafay nekk loo xamante ne kenn du am luñ siy wax ndax ay professionnel la ñuy doon euh, président du jury bi mi ngi tudd Fabakary Assim Bikoli defe naa am na plus de vingt ans d' expérience ci cinéma nekk na à la tête de beaucoup de films fii Sénégal ak bitim réew euh, ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi jóge yeneen bitim réew donc ku ci nekk am expérience ci professionnalisme ci euh, ci ci présence ak ci ay détails yu technique yoo xamante ne vraiment lépp ci professionnalisme lay lay lalu la ñuy def seen i choix euh, def ko entre ñoom jury comme ni ñu koy defee ci festival bi yëpp ba nga xamante ne ñun bés bi ni ko public bi di yëgee ñun loolu lañ koy yëgee donc xam naa ren atu Salma la woon rek euh, di leen féliciter bu baax di féliciter itam ñëpp ñi nga xamante ne maison de production yi acteurs yeeg ñëpp ñi nekk ci techniciens yi ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci festival Les Teranga at bu nekk di indi seeni film di indi seeni série euh, di tax yëf yi di dund ndax tamit euh, ñun Sénégal rek moo ñu ñor. merci beaucoup mais duma la bàyyi la suite du projet naka la. Ah, la suite xanaa commencé dès lundi incha allah euh, liggéey ci prochaine édition bi di préparer loo xamante ne am nañ yaakaar ne dina neex loolu sénégalais yi incha allah. merci jaajëf jërë ngeen jëf. mais je suis actrice comme je viens de le dire et là euh, j'ai joué dans un film du nom de Sira le long métrage de Fouseni Maïga il est le directeur du de la maison de cinématographie du Mali. Je suis l'actrice principale du film et le film a remporté un trophée. Je suis très très contente. C'est ma première fois de venir au Sénégal et participer à un festival du Sénégal. Franchement, j'ai aimé le Sénégal, j'ai aimé la façon dont ils nous ont accueillis. Et le trophée, je suis plus que contente quoi. comment, comment, comment se porte le cinéma malien là? Est-ce que ça avance? Oui, ça avance. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut dire que ça avance beaucoup mieux qu'avant. Et on est fiers de dire que nous sommes des acteurs au Mali. Mhm. Oui. Et pour notre sœur Fatou Jupiter, un mot pour elle Franchement, si je peux lui dire quelque chose, c'est merci. Merci beaucoup pour l'accueil, pour le trophée, pour tout ce qu'elle a pu dire de bien ou tout ce qu'elle a pu faire de bien pour nous. Elle est très gentille, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Euh, cérémonie Avaz bi day am chaque année suñu sœur Jupiter di organiser lan nga ñu mën a wax ci ah, kontaan ci moom rek parce que daf ma woon ne ma euh, Douda que dañuy def cérémonie bi te j'aimerais bien que nga ñëw. foofu donc euh, je suis venue grâce à elle mais kontaan parce que lii moo lay woon nii le Sénégal euh, cinéma Sénégal avancé na te loolu rek lañu bëggoon li ñuy gën a ñaax gars yi rek mooy ñi bëgg dugg yëpp mën nañ dugg mais nañu jàng cinéma cinéma c'est pas que danga nga rafet rek da nga war a dugg jàng la laaj voilà donc euh, di ko remercier bu baax vraiment donc ci lépp choix fan la toll série bi fu mu toll. waaw choix dañu jëloon pause mais dina ñëwaat mi ngi ci yoon bi waaw. loolu ngay wax Sénégal waaw loolu laa leen di wax ñoom ñëpp. Mhm. waaw Cheikhou dina ko dégg Aziz ñaan mi ngi koy dégg ah euh, Jojo mi ngi koy dégg donc mi ngi ci yoon bi te bu ñëwaatee ça va par choix am na yeneen série yoo daf yoo xam ne ñu ngi nekk en vie waaw mais c'est des longs métrages et des courts et aussi c'est des films internationaux oui. c'est international bi la gars yi gënoon a waaw parce que foofu laa ëpp lu ma nekk nii en ce moment ci international bi. mais nag je fais des castings aussi international et national. Ah, mais aussi je fais aussi des pubs et tout voilà. oui. merci beaucoup. de rien je vous en prie c'est gentil. c'est bon. te naka ma grand. sant bu baax. naka tournage. waaw ñoo ngi ci. mais grand gis ñu fenn yaa ngi voyage yaa ngi partout dans waaw yéen ma ko sant. ci li ngeen ma dénk ci laa nekk. bu baaxul ngeen woo ma ne ma baaxul ma jubbantiwaat. gis nañ ne jox nañ la prix Frank non joxuñu ma prix bi sama benn collègue moo gagné prix meilleure image. Mhm. ma jëloon doon leen ko jox. Mhm. muy Serigne Dramé. moom moo def déchéance bu Marodi moo gagné meilleure image moom laa doon joxe prix am. d'accord travail bi naka lay demee fi nekk nii parce que gisatuñ la fenn Sénégal naka lay demee. waaw non comme li ma waxoon sànq rek yéen yéen a ma yónni comme que Afrique amul frontière euh, adduna bi amul frontière donc frontière yi lañ bëgg a dindi barrières yi comme ci métier art lañ nekk donc voilà ñuy yóbbu suñu xam-xam ci adduna bi yëpp ci ñu ko soxla rek. gis nañ ne yéegal ngeen niveau cinéma bi la barre très si côté image côté réalisation côté tout lan la lan Sénégal yi lan la ñu war a xaar parce que fi mu nekk nii amatuñu envie ñeewatuñu kenn ci côté image waaw euh, dañuy gën a yéeg dañuy gën a yéeg parce que mission bi mooy euh, aller de plus plus plus plus donc voilà amul barrière comme comme comme j'ai l'habitude de le dire donc voilà ya a y a beaucoup de bien mais y a aussi il faut que ñu gën a organiser wu waat gën a wu waat et que ci combat boobu lañ nekk ñun ñëpp ancienne génération bi nouvelle génération bi ak futur pour gën a organiser wu gën a avancer pour le bien pour tout le monde. un mot pour Fatou Jupiter pour organiser lii. waaw Fatou Jupiter moom waaw na ko fi bàyyi rek. Mhm. waaw li mu def rafet na. Mhm. c'est une initiative à féliciter. Mhm. c'est pas facile de le mettre en place chaque année. donc courage à elle. félicitations à et toute son équipe.